salaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info tey ñi ngi fi nga xamante ne mooy kër numéro 2 nga xamante ne maa ngi koy tuddee le 13 janvier 2019 pourquoi le 13 janvier 2019 parce que le long séjour de Modulo en Espagne ne lui, a pas permis de prendre sa revanche sur Balaguer numéro 2 mais également le déplacement de son staff technique et de ses différents sparring partenaires n'a pas été déterminant sur ce combat tombé sur un lion à foie acharné déchaîné le modulo a fini par mordre la poussière devant le lion de Guédiawaye donc ma bàyyi rek suma confrère Gaspard mu daal di nuyoo présenté wu. alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa di sant suñu ñaari waajur réew ci suñu sëriñ sëriñ Bassirou Bara yàlla na yàlla yokki leeram te taaf ñu ci barkeel di gërëm ñi nga xamante ne jàppale nañu Balla Gaye numéro 2 yëpp njabootu waa kër Serigne Touba Xaadim Rasuul maam Cheikh Rafal njabootu Cheikh na Cheikh Sadibou Boukounta Ndiassane Niassène Layène euh, Boukounta Kunta Kunta yëpp daal maa ngi rawatina waa Casamance bi nga xamante ne fa laa juddoo euh, safar la sama papa fa la juddoo sama yaay fa la juddoo di leen sant bu baax di leen ak encadrement bi ku ci mel ni Aziz euh, Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Simon Pape Mama Andaw Ndiaye Papi Sané Thierno Gueye ak Baye Ndiaye ak Omar Gueye ak Masata rawatina aussi tamit géejaay bi ma yeewoo nga xamante ne fii laa dëkk ak golf ak suma école de lutte Balla Gaye numéro un ak suma boy yi nga xamante ne ñoo nekk foofu franchement di ma taxaw di ma jàppale waa sàmm sa ngor vraiment xale yi sàmm sa ngor yi ñu ngi sant ñëpp leen gërëm. ñu ne jël benn préparation spécifique boo xam ne nii mënuloo ko tax a jóg wala dem ñu xool sa yaram ne la yow préparation bii moo la laaj wala dañuy dañu xool mode ne lii nga war a def comme physiquement ak tactiquement pour gagner sa adversaire. waaw MCS moom ñëpp xam nañu sax daanaka caaxaan yóbbu fa nit wala tey bëgg liggéey rek bëgg engage engagé taxul ñu yóbbu la fa bañ ci waxtaanee ak suma mag ak Aziz ak Baye donc am koo xamante ne mu nekk foofu ña ngi ko vraiment balaa mu jël sax pour nekk ci wala ñu commencé liggéey bi difficile woon na parce que gisuñu moon xamuñu moon ba yàlla dogalee lu mu dogal ñu waxtaan ci ba yàlla dogal tey ñu war a dem bañ fa demee aussi tamit foofu dafa nekk liggéey bërëbu liggéeykaay boo xamante ne man mosuma gis lu mel noonu en fait bëri naa ba âge bi ma am ma am ko mais lépp loo xalaat ci àdduna ci wàllu sport mu ngi IMCES Paris moom mënoon naa sax toog mu fekkoon ne peut-être fans yi wala supporters yi bëgg ñoon gis Balla Gaye numéro 2 mënoon naa toog bañ ne une semaine moo des ci combat bi ma ñëw parce que amul lu ma deful foofu donc IMCES moom ñoom <laughs> macha allah dañoo compléter seen lépp. wa parce que 6 mois ça lañ faron def 6 mois yalla dogal xar xat yi ak préparation yi mo tañu def sax 3 mois yu metti yu yu di sax parce que man c'est la première fois si suma walu carrière ma dem top fenn sax 3 mois c'est la première fois sama tukki gën ko yagg 2 mois la yam musu ko wessu mais nak dund bi kon ñom nuñ koy dundé moy ma yew wo parce que ma len jëgë yew ma len jëgë tudde yow woo paa bi wala mère bi su njaboot gi xool leen ci luñ nekk après ñoom ñu comprendre aussi tamit dem liggéeyi ñëwaat tëdd ñu ngi ko doon dund aussi tamit dund boo xamante ne seen xel dal na ci man parce que condition yi ma nekkee awma ci woon benn benn difficulté ba moom benn problème. Hmm. waaw mbër ci kaw loolu bi nga jógee INSEPS nga ñëw ñu bëri dañ doon soucier wu ci côté contact yi naan mbër est-ce que contact yi liggéey na loo xam te ne doy na ñu gis ni loolu aussi doon na lu lu fës ci combat bi. tey au niveau des contacts lan moo waraloon loolu bi li nga doon liggéey nga nëbb ko askan wi. waaw au niveau de contact mooy li la wax maa ngi woon IMCES en Paris foofu am na salle de contact am na ay mbëri yoo xam ne maa ngi doon contact ak ñoom moo tax ma ne la mënoon naa toog ba combat bi des une ma ñëw parce que tey image contact bi tey loolu dafa bokkoon suñu stratégie boo xamante ne nekkul woon lu ñuy wone parce que mënoon ñoo nekk ci physique bi lañ leen di wan musculation bi lañ leen di wan daw yi lañ leen di wan. box bi lañ leen woon mais contact bi ba léegi gisoo leen benn image ñu wane ko peut-être benn photo la ñu wane rek ñu njatt benn waaye boo xamante ne tolloon nañu ak kon suñu adversaire ci lañ wane yaakaar naa mais ñu ngi doon def foofu con contact lépp parce que chaque jour rek ak li war a am ak li ñu war a def mais foofu moom mooy li ma la rek y'a tout complet am na contact am na physique am na box am na musculation am na ku yor médecin yëpp daal am nañ ko moo tax sax aw ma benn problème que ñi naan contagul ay un mois dina doy ci comptable ay rey daf may jàpp parce que ku xamul tamit aussi c'est très normal ngay bàyyi xel ci loolu mais maa ngi doon def lépp. Mhm. wa yag na ko diko def préparer fi dem keur Massar demat sat euh, amitié wala Amadou Bari Asafa wala job djob conseil mom ben la teyal teyal la teyal la parce que bo mune beure am na beuri sax duñ ko dugal sa nop donc man lima ma def sax suma suma mag moma ci génnee muy Aziz parce que mom ar bi man dama jëlone décision bu ar bi sifflé rek na kuy taxar naa si waaw ñu beure dal xex ba Sénégalais xamné beure nañ xeex nañ parce que dama non ne bëgg naa xeex 15 minutes balaa ma jàppante donc loolu laa doon dëggal mais après Aziz moo ne ma dalal xam nga rek waaw indiwaat ma quoi mot calme moo tax déglu suma adversaire bu deful dara ma appliqué. waaw ci kaw loolu ñu gis ni doon na combat bu am te da nga ko dirigé daal koy dicté sa loi ba mujj am ndam. mais ñu bëri doon xaar Sénégalais yi comme 9 ans après Modou am na lu mu acquérir ci expérience doole gi yokk na expérience bi war na yokk kon bu ñëwee war na am opposition de taille ñu doon xaar moo ñëw combat bi xaw a diire xaw mais est que ni demee nga ñëw dominer combat bi am ci ndam ci anam boobu est-ce que doon nga xaar tamit mu demee noonu. man doon naa xalaat sax mu gën a yomb noonu en parce que mooy li ma wax liggéey naa loo xamante ne liggéeyu moon sama demoon rek pour liggéey mais liggéey naa loo xamante ne tey sénégalais yi mënuñoo xam li ma liggéey. parce que peut-être euh, li may faral di wax rek àdduna yaa doxoo it ba nit mënoo dëkk chaque jour muy neex mënoo dëkk aussi tamit chaque jour muy naqari moment yi ma nekkoon neexoon na neex ba tey boo wax ne Balla Gaye mbër dina ko daan ci làmb sax duñ ko gaaw a gëm parce que yàlla moo def loolu ci man mais bu ma perte ñaari combat après def année blanche deux ans bëre presque mu mat trois trois ans wala quatre ans ñëw bëre ak combat Gris Bordeaux yalla togal na mu togal après ñi ba légui werante bi dess ñu continuer nek suñu liggéey motax mais IMCES moom li ma fi liggéey parce que tay ay champion du monde duñ la yor tay ngay ñew di am ben sik sak nga xam li nga liggéey xam li nga géré man xamoon na li ma liggéey bok vraiment. Mm-hmm. waaw loolu prise de woon sax parce que bu Modou Lo rëccoon tey jëli bi sax moo na gën a rafet que ni ma ko def bu mut Lo rëccoon tey ba génn moon na prise bi moo bëggoon def mënoon na gën a rafet parce que damay def demi ànd ak moom tubb wax bi baa ma tubb genou bi damay def wàcc ba ci suuf xaar ko ànd ak moom mais yàlla dogal na kon man ni ma téye woon baaxul bëggoon lu assuré moo tax muy def demi di ñëw ma teg jël sama loxo teg ko ci genou bi daal koy freiné

combat bi am nu mu demee woon ma ànd si ak sumay mag yoo xamante ne dañ ci dégg lu ne ñu leen ciy wax lu ne donc ànd ak samay xarit ak samay raq yoo xamante ne vraiment dañuy xuloo ngir Balla Gaye di xeex ngir Balla géey donc moo tax lépp lu ma doon def rek day wóor day assuré mais bu ñëwoon noonu wala mu romb jëlee ci lay gën a rafet loolu dama koy confirmer waaye. que yaakaaroon waa xam nga làmb mhm. mhm. xam nga aussi tamit làmb la danañ làmb day xëy rek aussi du ëmb affaire yu demee kon ni ko gars yi di waxee. promoteur aussi tamit mooy xool ku ko neex mu bëreloo ko amateur yi tamit lu ñu bëgg promoteur bi def ko. lu waaye di choisir tamit aussi tamit day fekk mu neex la man moom maa ngi ci làmb ji ba ñu ma kenn du ma ne duma bëre kenn waaye ku ñëw baax na mais promoteur aussi tamit moo yor soam moo yor xaalisam mooy engagé lu mu def tamit aussi tamit da nga koy encouragé ci loolu bu combat boobu amee tamit combat bu neex la parce que ay soomu sénégalais lañu ay mbër lañu ay champion lañu bu ñu bëree war na donc loolu seen normal waa xam nga roi des arènes sax wax dëgg yàlla roi la mais tey àdduna moom moo tëddee noonu rek boo ko doon xool ci victoire wala ci xool defet kon roi des arènes du jël roi des arènes parce que sport moo moo demee noonu quoi waaw. waaw damay rebondir foofu rek parce que comme ni ko suma confrère waxee. waaw ah, Eumeu Sène dem na jël Modou Lo mel day ko day bëgg a confirmer lim li mu waxoon. mais dañ gis observateur yu bëri nii Balla bi muy jël revanche bi contre Eumeu Sène parewul woon. da ko jël léegi ngir euh, daal di esprit de vengeance la andi mais parewuloon pour jël combat boobu lan ngay tontu ci loolu. ban ci. bi ngay jël sa combat revanche ak Eumeu deuxième fois bi ñu bëri dañ ni pare woon physiquement da nga ko jël pour esprit de vengeance. non esprit de vengeance <laughs> mënul mënul am ci làmb ji parce que Modou amul lu ma ko dencal man maa daanu Modou amul. Eumeu Sène. ban deuxième combat yaak Eumeu Sène. ah non loolu moom wax dëgg yàlla xam nga tey victoire jàmm doo ko salteel wala yëfu jàmm doo ko saltal bëri nañ ñaari yoon mu daan ma kenn mënu ci dara yàlla suñu borom moo xam ne daf may daan ñaari yoon kenn mënu ci dara daan na ma ñaari yoon c'est normal sama dessin la bokk Modou Lo bëri na ñaari yoon ma daan ko ñaari yoon sama dessin la bokk yàlla moo waroon da koy dogal li passé nag passé na mënuma cee wax lenn lu dul ku ma làmb boole rek dinaa bëri ak moom. waaw mais dañ la faral ngay lu bëri ngay wax ci say kàddu ni tey li la nga bëgg dem wut jëliwaat te da nga ko waa géej waaye muy la la titre roi des arènes te yaakaar naa ne fi mu toll nii pour nga doon ko dafa am ko am te ne dafa taxaw sa kanam te affronter ko dafa war a mën a doon lu jaadu mais obstacle moom moom nee na dootu la jël. waa am na ci plein droit parce que xam nga làmb moom titre bi nekkul fenn dëkkul fenn aussi tamit ci Yékini la ci Tyson la nekkoon jóge ci Tyson dem ci Yékini jóge ci Yékini ñëw ci man jóge ci man dem ci Bombardier jóge ci Bombardier dem ci Eumeu Sène noonu la.